Balla gay numéro 2 ak Boy Niang numéro 2 jamono ji mu ngi bëri coow loolu ki nga xamante ni mooy déggool bi nga xamante ni mooy papay Boy Niang numéro 2 moom nag ñëwaat na ci combat bu dox diggante doomam ak kii di Balla Gaye numéro 2 nee na combat boobu combat bu dara métti rek lay doon te pour pour daan ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 faaw nga joxe li nga xamante ni mooy sa bakkan ndax ki nga xamante ni mooy déggool moom nag ñëwaat na ci li nga xamante ni mooy parcours kii di Balla Gaye numéro 2 nee na Balla Gaye numéro 2 boo xoolee rek ab champion international la képp ku naan kii di Balla Gaye numéro 2 dafa jeexal ke na jàpp na jàppale ni rek xamul dara si li nga xamante ni mooy si làmb ndaxte Balla Gaye amul lu deful si li nga xamante ni mooy si làmb ji kon nag combat boobee nar na doon combat bu nar a métti loolu moom euh, déggool nee na nag booy Niang numéro 2 xale la te combat boobee sax euh, du tax sax muy naan euh, damay dem wala du ma dem kon nag kii di Balla Gaye na préparé wu ndaxte dafa am euh, combat ki nga xamante ni mooy Balla Gaye euh, numéro 2 dafa am euh, ñaari defet rek loolee sax taxul wala sax defetam boobu amoon rek moo tax mu bëgg ñëwaat si làmb ji ak doole waaye nag loolee taxul kii di Balla Gaye numéro 2 génn si ba léegi kon nag combat moom ak Boy Niang combat bu nar a métti rek lay doon te pour daan Balla Gaye numéro 2 bu sukkandikoo si déggool nee na nag lépp loo xamante ni am nga ko si sa dund da nga koy joxe di nga entraîné comme si yow dañ lay rey ndaxte boo xoolee kii di Balla Gaye numéro 2 rek rek Balla Gaye euh, numéro 2 ba mu dajee ki nga ni mooy euh, Tyson ak Yékini dafa def euh, kéemtalaay kattan wala sax dafa joxe li nga xamante ni mooy bakkanam ngir daan Tyson daan Yékini pour nekk roi des arènes loolee sax moo dal ki nga xamante ni mooy Boy Niang pour mu nekk li nga xamante ni mooy champion faa mu entraîné joxe bakkanam pour daan Balla Gaye numéro 2 nee na nag jamono ji moom déggool du wax li nga xamante ni mooy stratégie bu ñu adopté pour daan kii di Balla Gaye numéro 2 ndaxte combat boobee boo xoolee rek képp kuy amateur rek réclamé nga réclamé nga ko ndax combat boobu boobee combat bu jaadu la te diggante Balla Gaye numéro 2 dafay nduróo combat Yékini wala sax combat Tyson ak Balla Gaye numéro 2 dafa jotoon te euh, amateur yëpp soxla ko moom nag nee na du wax stratégie boo xamante ni moom rek la ñuy indi pour daan ki nga xamante ni mooy euh, Balla Gaye numéro 2 moom dëggool mooy wax rek nee na nag combat boobee combat bu ñëwagul la te combat boo xamante ni temps lu des dafa bari kon nag coow li du bari jamono ji ñu ngi seen ruq di def li nga xamante ni mooy ay entraînement yu